ki nga xam ne moom la fi yàlla def ci njabootu Serigne Touba mujj mu Serigne Saliou ku ne xam na ne fa mu tegoon njabootu Serigne Massamba Diop Samb ku ne xam na loolu am na ci loo xam ne mu ne su ko wax ci rajo waaye fa mu leen tegoon kenn mënu laa wax fan la liggéey bi mu njëkk a def gis nga ko muy liggéey bii Serigne Cheikh Amadou Badara Diop liggéeyal Serigne Saliou ci kër Serigne Touba gi keroog ba mu toogee da koo yeesalaat di ko yénk ko Serigne waaye sëriñ alhaaji baara mbàkke mi nga xam ni siin moo njëkk a toog ci xalifa xëcc sët yi keroog ba mu toogee bogo gi nga xam ne si ni sëriñ Mat Jóob ba ko goroon keroog la wóolu sëriñ ma sëñ sëñ Basiru Jóob ba mu ñëw mu ne ko damaa bëggoon liggéey boobee sëñ ma sëñ Mat Jóob goroon damaa bëgg tey jii ma barkeeluwaat ci liggéey bi may tàmbalee liggéey sëñ Tuubaa ma bëggoon yéen ngeen wàkk sëñ ma Sàmba Jóob ma barkeeloo ko bëgg ngeen yeesalaat ku ne xam na ne keroog bogo googee wàkk sëñ Madu ma Sàmba Jóob ba ko gor goraam sëriñ ma Sàmba Jóob sàmm nekk jëmm joo xam ne li sëriñ bi wax ni moo njëkk a jébbalu dafay wane ni sëriñ Tuubaa nuru gu mu nuru rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ndax duggug sëriñ Masamba Diop Samb ak duggug Seydou Ibnu Haarisa mi nga xam ne Seydou Ibnu Muhammad lañ ko daan wooye ci jamonoy arab yi bu njëkk ñoo yemoo te kooku daa jëloon lépp bàyyi ndeyam ak bàyyam bàyyi léppam jaay ko jënde ko ak njaam bàyyi bàyyam ak yi bàkkam ni ko ndax da ngay tànn ak njaam ci sa ay bàyyi mu leen waaw kii li ma xam ci moom ci ay jikko xam ko ci moom jikko ji rafet xam ko ci moom ci tab ak mbaax du ma tànn kenn ku dul moom keroog la yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw ca Kaaba ga yëkkati loxoom daan yéen mbooloo mi na ngeen moom yéen waa Quraysh gépp ñu ne ko haa muy leen na ngeen xam ni si ni bis ni ki tey Sayd ibn nii bis ni ki tey Sayd ibn Muhammad la sama doom la doomoo naa ko kon njabootu Serigne sàmm mu Samb mosuñoo teggi seen tànk ci taxaw fekk seen tànk fi nga xam ne fa la ko Serigne Massamba Diop Samb tegoon rawatina bis bii ki nga xam ne moom la ñu muy Baye Serigne Diop nga xam ne Serigne Touba ko moo ko jàngal alxuraan moo ko defal lépp loo xam ne si ni wàcc wàccaay doomi soxla moo ko def ci moom kon Baye sëriñ nekk na jëmm joo xam ne si ni fi ñu waajale Serigne Mat Diop lañ waajale Baye Serigne fa ñu waajale góor yàlla yëpp ci ñaan jabar Serigne Touba kon suñ Baye Serigne xëy na jombul mbokk yi bu ñëwee dana leen ci gën a leeralal bëgguma sàqami benn lant waaye daal ñu xamee ko noonu. ñun Serigne Cheikh Sall bu dee waxtaan. day taataan di jàng waaye di jàng ci li ñuy waxtaan waaye soxna aw bi tey nag soññi nañu lool wax dëgg yàlla ni góoñ jóg leen ndax tey waxtaan wu ne nag joxe àddiya baax na ci liggéey bi ñuy liggéey ñi nga xamante ni ñi ngi leen di sant nag bu baax a baax di sant képp ku fi nekk ku teew ak ku teewul ku ñu war kuñ tudd sa tur ak kuñ ko tuddul képp xamante ni xel day fattu waaye fàttewuñu kenn sant nañu baax sëti ngànna yi nga xamante ni teew nañ fii te sëñ maas Gueye Pikine ak sëñ Modou Gueye ak soxna maam Diarra ak soxna Ndeye Gueye ñëwoon fii teewal leen ñu ngi sant bu baax daayira maam Diarra bu usine bu Parcelles Assainies di sant kuréelu port ci njiital sëñ Maguette Diop di sant Silatu Rahim bu Touba bu Sula Lay di sant tamit euh, Cheikh Ibra Lay mbokk yi ñu ngi sant ñi nga xamante ni dañu jàpp ci liggéey bi fàttewuñu kenn ku fi teew ak ku fi teewul di sant bu baax sëriñ Cheikh Thiam Njeng di bijoutier di sant sëriñ Bara Gueye Clean Oil di sant tamit euh, sëriñ Moustapha Tall mu ngi jàpp na ci liggéey bi ñu ngi sant sëriñ Boulo Gueye ak boulanger ak sëriñ Kamal Thiam ñu ngi sant tamit sëriñ Assane Gueye ak sëriñ Cheikh Sall boulanger wàllu jigéen ñi sant nañ bu baax ñi nga xamante ne teew nañ fii képp kuñ tudd ak kuñ tuddul soxna aw bi mi ngi nii teew ak mbooloom wax dëgg yàlla lépp loo xamante ni ñi ngi koy def mi ngi ciy jàpp soxna Daba Gueye bàyyi faalu sëñ ma Samba Diop Sam ak daayira bi mu àndal bépp ñoom ñëpp teew nañ fii des na nag bu baax a baax suñu mag soxna Adja Ndeye sàll bëggoon na fee teew waaye yàlla dafa dogal eh, mu xaw a tawat looloo tax teew fii waaye doomam madame Tëgg Gueye teewal na ko fii di sant tamit Adja soxna Pen bàyyiwuñu kenn guddi ak bëccëg yéen ñëpp yéen a ngi ñuy jàppale ci suñu liggéey bi di sant te te ma waral koo njëkke nag ki nga xamante ni suñu baay la suñu magum taalibe def nu morom te yebuñu ko muy sëñ Moustapha Guèye ubbi nañu këram di nu jàppale guddi ak bëccëg dinu nu ci xel ak ci xalaat ñu ngi sant bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bismillahi rahmaani rahim kon bokki jullit yi bokki taalibe yi jataay bii sant nañ bu baax ci nii mu bindoo ndax xëye nañu jàng alxuraanul karim alxuraan nag ku ne xam na ni mu demee ci ku tedd kii di Seex Ahmadul Xadim waaye ni mu demee ci Seex Masamba Jóob Saam noo nga egg nag ci daanaka catul jataay bi mottali ay kàddu ci teewaayu kilifa yi nga xam ne teew nañ fi ku ne xam ne Seex Abdourahim Jóob bis bi ñor na ko lool yabal na fi mbooloo mu sakkan waaye kenn ca bopp ba di sëriñ aboo doomam ku ne xam ne Cheikh Abdourahim Diop bis bi ñor na ko mooy xalifa Cheikh Massamba Diop Sam yabal na fi mbooloo mu sakkan ñu teew fi sëriñ aboo dana jël kàddu teewal na leen waaye njaboot Cheikh Modou Massamba Diop Sam sëriñ Basir Diop xalifa ba moom it am na fi ñëw ci turu kër ga ci ndigalam ku mel ni sëñ Basiru Jóob alxuraan ah, sëñ Abdu Lahat ci boppam yabal fi sëriñ naa Jóob sëriñ Siidi it sëñ Abdu ci boppam yabal ko fi muy sëriñ Siidi moom sëriñ Ceerno Jóob lépp di kër njabootu Seex Moodu Masamba Jóob Sàmm ak mbooloo mu sakkan nañ fi waaye sëriñ Basiru Jóob ab xalifaam ñu naa ko sëriñ Basiru Diop Diall moom it macha allah teew na fi ak sëñ Muxtaar Diop mi nga xam ne moo doon dalal gan ñi bokk ca kër ga ak mbooloo mu sakkan waaye Baye Sëriñ Diop mi nga xam moom lañ tuddee bis bi te ci kanam ah ñii fi teew di waxtaan dinañ ci leeral lu yaatu ci kan mooy Baye Sëriñ Diop moom it sëñ Baara Diop ma def xalifaam yebal na fi mbooloo mu sakkan sëñ Amsatu Diop jiite ko. ak sëñ Jiili Joob ak sëñ Xaadim ak sëñ Cheikh Naar ñoom bu jëlee kàddu danañ leeral délégation bi ak torondoo wi yónne bi ñu leen yónni waaye sëriñ Fàllilu Joob sëñ Soye bu Joob bu yebal fi mbooloo mu sakkan sañ Moussa Mayaay moom itam sëñ Ceerno Libi yebal fi ay doomam mbooloo mu sakkan sëñ Galas Joob ak sëñ Moussa Joob ci kër sëñ Moussa Mayaay waaye sëñ Mbàkke Jaare Joob sëñ Alaaj Joob yebal fi mbooloo mu sakkan sëñ Moodu Masamba mii muy sëñ Mat Joob ak sa yëpp laat teewal fi kër gi yëpp ak mbooloo mu sakkan sëriñ Abdou Jamil Diop sëriñ Alaaj Diop mi nga xam ne naka jekk dafi teew teew na fi ak mbooloo mu sakkan sëñ Moras Diop sëñ Mamour Diop yebal na fi mbooloo mu sakkan sëriñ Abdou Wahab Diop moom itam sëñ Sam Diop yebal na fi mbooloo sakkan ñi ngi teew ci jataay bi sëñ Abdou ki nga xam ne mooy sëñ Abdou Samad moom itam ab xalifaam sëñ Moussa Diop teew na fi ànd ak mbooloo mu sakkan sëñ Mourtala Diop. moom itam sëñ Baara Jenn mi di xalifaam rebal na fi sëñ Baara Jóob rakkam ñu teew fi ak mbooloo mu sakkan waaye ki nga xam ni mooy sëñ Baara Jóob ñu naa ko sëñ lemin Jóob moom sëñ Mahamadan ma ne ca bopp ba di xalifa ba moom it yebal na fi mu sakkan sëñ Cheikh Badar Jóob jiite ko sëñ Xaadim Jóob ak mbooloo waaye ñi nga xam ni ñoo fi ba tey ki nga xam ni sëñ Muxtaar Jóob moom itam sëñ Maam Bàcc Jóob mi nga xam ni moo di xalifaam ñu tudd ko maamam mu yendu fi teew feek mbooloo mu sakkan sëñ Mbàkke Asu Jóob moom itam sëñ Alaa Jóob sëñ Galas yabal na fi mbooloo mu sakkan waaye ci turu sëñ Muntaxaa mi nga xam ni mooy xalifa général di murit fonk lool bis bi moom itam bokk taalib bi fi teew yëpp ak kii nga xam ne moo fi teewal di Alaaji Mbàkke yu fay nga xam ne moom itam ci kanam tuuti sëñ Moodu Mbay Sàmb dana ci jotal lu yaatoo yaatoo te moom it mbooloo mi dugg nañ ci biir jumaa ji gis liggéey bu sell bii ak ni bindoo mooy fa tubaarikàlla waaye ki nga xam mooy sëñ Moussa Guèye te doon jànge ci këram alxuraan ji dal fa mu daloo gan ñi moom it ak mbooloo mi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi yëpp ak ci turu boppam ni mu fonk Cheikh Massamba Diop Sam mi nga xam ni mooy buntam ci Serigne Touba moom it dalal gan ñi dal bu sell moom teew na fi ak mbooloo mu sakkan ci dëkk bi waaye njabootu maam Cheikh Rahane Fall ñu ci bari teew nañ fi njabootu maam Cheikh Sa Dieng moom am na ñu bari teew na fi sëñ daam jenn teew na fi doomi sëriñ siidi jenn moom sëñ ab latif jenn moom it teew na fi waa kan maam Thierno seen digg ak maam Cheikh Massamba Diop Sam yaatu lool te yàgg mbooloo mu teew na ci tur woowee sëñ Daaru Assane Ndiaye moom it sëñ Moustapha sëñ Moustapha Kamal moom itam teew na fi ñàkkul dana fi jël kàddu waa kan sëñ Souleymane Diop sëñ Fallou joob yebal fi mbooloo mu sakkan ñi nga xam daal ñoo fi teew ñëpp xam naa day xaw a guddi ba tax ñu tënke ko nii waaye nu bàyyi xel ci ni rek ñi fi jël kàddu danañ mottali ci des maa ngi jégalu bu baax nag ci nin waral na gën a yaatale te yaatal gi des sëriñ xaadim lay mi nga xam ni daayira xidmatul xadim mooy moo ko jiite sëriñ ahmad mbàkke teew na fi ak mbooloo mu sakkan ci wàllu délégation ci mbàkke mbàkke yi jóge Touba ñëw teey bii sëriñ xaadim lay nag jiite kuréel bii nga xam mooy daayira xidmatul xadim li ma Massamba Diop Samb mboolem daayira bi ñu ngi ko seq ñëpp comité organisation bi te sëñ Ousmane Sall di secrétaire bi ak sëñ Omar Thiam di coordinateur bi ak sëñ Basirou Sall ak sëñ Diop Guèye ak sëñ Dame Guèye bu limee dañuy juum waaye ñooñu ñëpp ay mbooloo yu sakkan ak mbooleem na kuréel bi nga xam ne mooy soxna yi nga xam ne gis ngeen seen niroo lay nee yàgg fonk lool barab bi fonk daayira bi moom it lim ba day xat. waaye ñoom ñëpp teew nañ fi taxaw ci liggéey bi loolu di joxe seen addiya ku fi teewee ñu yëkkat seen addiya ba tey di ko jox loolu lu rëy la loo xam ni Cheikh Massamba Diop mi ñu koy defal fa tubaarkàlla am nag pay waaye waajtaay wii mooy waajtaayu Daaru Saam cinq 5 janvier bii di ñëw mooy Daaru Saam kon bisub tey bii mooy waajtaayu Daaru Saam ñu fas yéene waajal siyaaru Daaru Saam le 5 janvier moo waral jotaay tey bii kon danoo bañ a gën a guddal te kilifa yi toogaay bi yàgg na danañ jox kilifa yi nag ñu eggale jataay bi li ci des kenn ku nekk am na loo ci war a wax noo ngi jégg lu baax nag guddal gi ak ni mu bindoo ak ñi fi teew booba tey xam nañ jëmmi Cheikh Massamba Diop mi ñu fi tax a teew ak ki nga xam nañ ko tuddee muy Baye Serigne Diop tamat ko sëkk yàlla na bokk am pay googee ci dara ji si Amadou Khadim mi nga xam ni moo moom lépp mooma barke maam Cheikh bu mag ba ak mboolem seen àndandoo bu sell boobee jërë ngeen jëf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 di sant ñëpp ci jataay bii nga xam ne am na te ñu amal ko ngir suñuy jëmmi sëriñ yi nga xam ne amuñu lu dul moom te muy suñu bunt ci yoonu sëriñ Touba muy a Seex Masamba Diop Sam yàlla na yàlla yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem euh, ñi ngi jël nuyoo bi di ko teg ci loxoy kilifa yu tedd yi nga xam ni ñoo fi teew te teewal fi seen maam ma sàmba jot Sam ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñépp di wax ni lii nga xam ne ñu ngi ciy dox day mel ni euh, war nañu bu ñu woo mbooloo mi ba ñu dikk toog ñu wax leen li nga xam ni moo tax ñu def jataay bii ak mbooloo mii di leen fi woo euh, ndax day mel ni war nañoo rusa jóg di dox ci loo xam ni ndigal nekku ca mu mel ni doomi sëriñ Abdul Wahab yal yàlla yokk ay leeram mi ngi fi te bi ñuy sos lii ñu ngi ko sose woon ci jataayu Cheikh Abdul Wahab biñ doxee ab diggante mbooloom mi dañoo wax ni maanaam mbooloom murit lépp lu ñuy def dañ ko war a teg ci kaw ndigal ñu ni kon dañ dem jëli ndigal ci sëriñ Abdul Wahab bi ñu demee waxtaan ak moom ci li nga xam ne moom lañ nar ak li nga xam ne moom lañ gis ci niñ ko faral di leerale nga xam ne mbokk yi ni ñu bokk dëkkee ndakaaru taxul ñu xamante noonu biñ ci waxtaan ak moom nga xam ne léeg-léeg nit dana jóge fii jëm Darou Sam mais day foog romb mbokkum taalibeem buñ demee ba Darou Sam la ñuy door a gindikoo te ki doon dem otoom kenn moo ca nekk wala ñaar ñoo ca nekk biñ demee mu rafetlu ko lool wool doomi boppam aseex Seex Abdou wax ko ni ko na seere li muy wax woo a Seex Basiru imam wax ko ni ko na ko bindal li muy wax te bu ñu demee ñu def ko kayit yu bari matale ko ci mbooleem taalibe yi nekk foofu moo waxal boppam wax ni mu ngi sant mbooleem koo xam ne ci kër gi nga bokk sañ na laa digal mu wax ni mbooloo moomee nañ bokk dugal ci sa loxo te yamul ci loolu mu wax ni képp koo xam ne dugg na ceet mu ngi lay ñaanal suñu borom defal ak jàppandal tey ak ëllëg mbind yaa ngi fi demul fenn bi loolu amee ñu ànd ak moom ci liggéey yu bari ba yàlla dogal la muy dogal ci moom ñu ànd ak sëriñ saam xalifaam dem ci sëriñ abdourahim yàlla na yàlla yàggal ab jataayam te may ko ak wér bi ñu demee ci moom Serigne Sam wax ko ni ñu doon dundee ni ñu doon doxee ak waajuram ñu wax ko ñun ni ko dañoo sañ te jéggi benn jéego te du daa nekk ci kaw ndigal ndax sëriñ Touba wax na ni eh, ndigal day dimbali jëf ci nangu gi te loolu xam nañ ko bu baax a baax biñ ko waxee loolu mu wax ni lépp loo xam ni magam ju baax ja defal na ko fi ci lu baax da koy suuxat waaye du ko sempi ñu ànd ak moom macha allah ci ay liggéey yu bari yu am solo yoo xam ne biñ ci mujjee dem bi ma mujjee jóge fii rek dem ni dañ koy ñaanlu ci bis bii ñuy def da caa bég mbégte moo xam ne man mësuma koo gis ci moom keroog yàlla dogal na li may wax day mel ni am nañu ko seere fii jël na samay loxo te di ñaan ngir dañoo demoon di ko sàkku mu ñaanal ñu ci bis bi ñu dugg ci ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin muy ñaan ba mu yàgg defe naa benn doomam ci ñi ko fekke woon mi ngi fi muy sëñ seex Mat Diop dafa wax ne ana Cheikh Mat Diop ana maam Thierno ñëw leen ñaanal ko ci seen barkeb maam mu am li mu bëgg ni mu ko bëgge kon day mel ni lii ñu nekk nii ku taxawul fu dëgër yow yaa jàpp ni taxawoo fu dëgër waaye ñun xam nañ ni fu dëgër lañu taxaw liggéeyal Serigne Touba rek moo ñu ñor te suñ buntu ci ma Massamba Diop Samb lañ koy jaare te ki fi nekkal sëriñ ma Massamba mooy Serigne Abdourahim moom rek lañ def muy kilifa ku ko def kilifa nag ñu def la kilifa waaye ku ko teg fa neen ñu teg la fa neen ne ñëpp maase xam ne ay taalibe lañ yoo xam ne ci biir kër gi lañ doon doon fi mbokk mais soxlawuñ mbokk gi ndax Serigne Abdourahim laa toogal mu wax ni sëriñ bi daa masa woote jataay muy Seexul Xadim wax wax ni nay mbokki boppam tooge wet yi taalibe yi tooge wet mu wax taalibe yi ni nañ ko jàppal ci mbokkam yi ndax mbokkam yi moom lañ am wax mbokkam yi ni ko nañ nañ nañ ko rus ci taalu mbo taalibe mii ndax taalibe mii ñoo moom moom moom la moom moom ñoom la am kon ñun ndokk bañ bokkee ci ñi Sëriñ Tuubaa moom am leen loolu rek la ñuy tiitaroo doonu taalibe soxlawuñ leneen ñi ngi sant bu baax a baax nag ci mbooleem kilifa yi nga xam ni ku ne xam na ne xat-xat yi bari na lool ku ne xam na fi jamono tollu ku ne xam ne coonay jamono ak coonay voyage ñu bàyyi seeni itte ñëw yendu ak ñun ci lii ñuy dundalal seen maam ndax buñ ko doon liggéeyal seen maam te gisuñu leen ci day mel ni eh, liggéey ba mën naa tege ci kaw yoon waaye ndam lañ ci war a am mën naa bañ a demee noonu jërëjëf mu mel ni bim ah, lii may wax ni ba léegi ñi ko fekkee ñi rek ñoo fi nekk te doon ay doom ci kër gi bi ma dee bi ñu demee di sàkku ji ñaan ngir mu ñaanal ñu ci bis bi daf ñoo wax ni nanga wax mbooloo ma ni leen demoon naa ci sëriñ Muhammadul Muntaxa ibnu Seex Muhammadul Basiir ibnu Xaadimul Rasuul dem doon ko jox sama bopp ak mbooleem lu aju ci man ñu am lu ñu dënante ni ko sëriñ di Moxtaar defe woon nettali ko ba wax ko ni ko ba mu dikkee la yëg ni yoon wi dikk na ci moom ndax ñun nattable wuñ ni sëriñ Masamba xëy na ñi ko jigee ñoo xamul lu mu doon waaye lii di ahlu Mbàkke xam nañ sëriñ Masamba mooy kan ku ci nekk da nga wut njiig laay ci ñoom ku fiy tàmbali dara sax da ko tàmbalee ci ñoom Euh, sëñ Sidi Moxtaar nett leen ne li ñu njëkk jariñoo Touba mi ngi jóge ci loxob Seex Masamba Diop Samb te barkeel gu mbiram barkeel waral na euh, liggéey gi mu njëkk a liggéeyal sëriñ Touba nangu aw sasam defal ko ko ba léegi nii benn mbàkke mbàkke liggéeyatul te teewul muy jariñu kon liggéey boobu mooy dox ba nëgëni njariñ lañu maanaam xéewal yi ñuy xéewloo mu mm. mm, ku dëkk Touba xam na ni sa sa sa sa pexe mayu la dépasse ba ngay dépassoo te xéewal gañ fa njëkk xéewloo Serigne Massa ci loxob Cheikh Massamba Diop Samb la jóge kon day mel ni moom lu mu duggal loxoom barke topp ca te du ca jógeeti ba mukk ndokk nag ñun bi ñu bokkee ci moom la ñu nag day mel ni waxi mbooloo la du waxi mbooloo yóbbante woon nañ ma waaye moom moo sañ lu baree bari waaye man bari na loo xam ne faaw ma di ko réserver waaye daal ñi ngi sant ñi nga xam ni suñuy sang lañ te ànd ak ñun liggéey bi nekk ci biir di sant ñi nga xam ne bàyyi nañ seen itte yépp te doon suñuy sang te xam ne buñ waxoon ne nañ leen fekki defee ko fa ñoomeen ñu fekki leen waaye ñu bàyyi seen itte yépp dikk ànd ak ñun jëmmal bis bi ngir jëmmi seen maam yàlla nañ ci dabe dajeeg ngërëmul seen maam ñoo xam ne daal fu waay dem ne yóbbaale ni ñun daal ay ndongo yu xeebu lañ yu fa yéenee liggéeyal suñu sëriñ muy seexul xadim te suñ buntu ci seexul xadim mooy seex sàmba job sàmm kon foofu rek lañ ko mën a jaare beneen ba ca des mooy li ñuy def nii ku ko dégg te bokk ci kër gi war na cee dugal ab loxoom fexe ba mu taxaw ndax nattabewu ne niñ koy waxee jamono ju nekk ku nekk mu ngi yëngal mbir ci bërëb di woote ni moom mooy diw. te ñi ci bari euh, na ma yàlla ba àgguñu ci doon rakkal sax bay doon diw kon nag ñi yor lu loo xam ne leer na leen ni luñ yor la te liñ yor nattable ko war nañoo won seenu njaboot won seeni doom ak seeni sët ne leen lii ci lañ nekkoon euh, euh, lii ci la ci suñuy waajur nàmpataloon ñu nàmpatal ci seeni doom ba li xew nii ci jamono ji nga xam ne nit day gàddaay ci béréb dem ci bërëb di fu wuti leneen ak leneen loolu dakk loolu rek moo waral ñuy yëkkati bis bu mel nii ndax wuy ji mënul ñàkk te buñ buñ wootewut wut ñun faaw xale yi dem di wuy ji faneen te ku wuy ji faneen bu yàggee nga xemeem foofu ñu ngi jégalu bu baax a baax nag Cheikh Basirou Diop mi nga xam ne lépp li ñuy yëngoo ci lislaam di ko jaamoo yàlla ginnaaw yàlla ak moom la euh, su ñuy wax ci kanamam nañ war a waxee sax dee ko def di sant bu baax a baax ak Cheikh Basirou Diop nga xam ne moom lañ tudde woon bis bi waajuram daaw biñ biñ fa demee dafa wax ne lépp lu mu jàpp dana ko bàyyi dana teew si ci bis bi yàlla dogal démb di sarax nekk siin mu dem ca te teewul maanaam mu mu mu mu gontewaat foofa fas yéenee dikk maanaam ngir teew si ci bis bi te it xam nañ ni daa ñëw ci mbooloo mi gis ni sëriñ bi rek a ci nekk waaye bu ci gisee ne caaxaane du ci doxe noonu ñi a baax ñi nga xam ñooy waa kër bàyyi Serigne Diop ñi ñu tudde woon bis bi ñu bàyyi xelit ni maanaam li tax ñuy wër mag ñu baax ñi di leen tudde bis bi mooy njaboot gi ci biir dañoo war a xam nan la euh, ñan ñooy waa kër seex ma sàmba Diop Sam ndax koo ci tudde bis doy na sëkk nga waxtaane ko soo ci doon waxtaan ba euh, ba suba du tax nga jeexal ay ay ay waxuma nag seex Cheikh Massamba mu mag ma kon ñu ngi sant bu baax tey gërëm di sant bu baax mboolem suñu sang yi daal di sant bu baax ñi nga xam ne ñoom lañu àndal liggéey bi te ñu jàpp ci jamono ju nekk di sant bu baax it soxna yi nga xam ne duñu dàcc mukk jamono ju nekk ñu ngi ñuy ñu ngi ci biir mbooloo mi di ci dox ñu ngi sant bu baax euh, Cheikh Moustapha mi nga xam ne ci moom ci këram lañ doon defee bis bi ak mbooleem koo xam ne jàppoon na ci ñu ngi lay sant di sant it Touba TV yi ci jàppandal gi nga xam ne def na ko ci lii nga xam ne doon nañ ko euh, liggéey ak ak Argentine TV ak alxaaji mbakk yu fay kon ñu ngi gàttal rek di yemale foofu suñu wax mu dëkk Touba minallah woote muridullah nu ku jébbalu am nag man jëfe li may digle dem àjjana kon na ñépp ni alhamdulillah bokki jullit yi bokki taalibe yi murid yi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziare ci weer wu tedd wi nu bokk nekk rawatina barab bu tedd bii nu bokk ndaje nuyoo bi nag ak ziar bi dafa bàyyi ko ci sunu jëwriñ muy alxaaji mbàkk yu fay représentant xalif général de Mouride ci ndakaaru ak li ko wër mu jëm ci njabootu Serigne Massamba Diop Samb liggéey bu rëy boobu la tey moom lam ci jëkk rafetlu mooy tànn gi ñu tànn barab bi di fi defee mbirum sëriñ sàmba Diop Sam kon tawféex la ci li ma wax démb ni ma sant naa yàlla doon ñaan ñaan gi nungu mooy njabootu sëriñ sàmba Diop Sam ñëw ci barab bi di fi waaje ziyaaru daaru Sam kon nag ma nuyu bu baax xalifa bu tedd ba muy sëriñ Abdourahim ak njabootam gépp di leen wax ni sëriñ Mbàkke yu fay xolam sedd na ndax kii di alaji Moustapha Guèye te ngeen di ko yu wax ñaare day sunu dëkkandoo fii ci barab bi waaye wallahi azim nit mënu ko ci barab bii nu ne ci jëf ak ci wax ak ci rafetal kon loolu moom doy na ci diplôme sëriñ Massamba Diop Sam taalibeem laa wax ci barab bi kenn mënu ko ci jëf ak ci wax ju rafet ak nëbb boppam feeñal sëriñam saa bu dee joxe addiye danaan addiye sëñ Moussa bu Diop saabu kon doy na ci bi ci sëñ Fallou mi tudd yaatal maa toog ci kanamu sëriñ Saliou Mbacké mu ne ko Fallou de yaatal moom na yaatu lool bu ko yemale fenn na yaatu loolu sunu borom dogal na biñ koy wax maa ngi teewoo di sant nag bu baax daayira bu tedd bi sëriñ xaadim jiite te waxtu wu nekk ñuy ñëw di am nag ñun boole na ci liggéeyu sëriñ ma sàmma Diop Sam ndax ñàkk cee bokk wóorul kon ñoom buñ dee dikk fekk nu ci diwaan bi nu ànd nag ñoom donte dañ cee jël benn bant sax bokk kook ñoom liggéey bi suñu tawféex lay doon di leen wax ni sëriñ bi di Cheikh Mouhamadou Mountakha na ñépp ni yàlla na fi yàgg lool te mu ànd ak wér moom day mooma ni naa wax murid yi ni leen murid yi ni leen suufus ndakaaru day dafa am lu mu bëgg a wax te mënu koo wax daa wax ni naa ko ko waxal daa di wax ni nit suuf si nee na naqar wu mu amoon bi sëñ Tuubaa ñëwee ñaari guddi ndakaaru am na mbégte mu ni toll bi ñu fabee jumaay Masaalikul Jinaan yi teg ci kawam mbokk yi sëriñ Mountakha daal wax ni xataayu néeg bële ca kan jël nga xam ni mètre rek la ci carré benn mètre carré la ñu fab sëriñ bi dugal ci biir yàlla dimbali na ma bi ma nekkee ci armée bi man maa defaraat néeg boobee ba nga man faa julli loolu suñu borom dimbali na ma ci kan jël jóob moo xam ne nag néegam boobee nag moo ko indil jumaam ji nga xam ne Afrique de l'Ouest ba mu daj amu ci saa boo dee tudd lu rëy nag lu tuuti day am kers moo tax sëñ ma Sàmba jot Sàmm euh, bët bu gisi xefam da koo jege mbooloom ñi ko jege jàpp naa ne est-ce que xam nañ li ñu yor ndax barab booy jege di fa jage bu la jigee doo fa jóge kon dana rafet kuñ ni ci sëñ Massamba Diop Samb nga am benn toq war nga am tawfeex yoo xamante ni foo toll rek war nañ koo gis ci yow kon loolu duma ko wax sang yi ndax ñi ngi ci waaye général bay digle maaj waaye soldat bu ne mooy jàngal moroomam maj kon nan góorgóorlu bu baax di fàttaliku jëmm ji nga xamante ni ak njabootam day xam nañ lu addiye di jëriñ ni seen maam ma ne woon gaañi ci biir barab bi noonu la ak njaboot tamit ma ci kër Sëñ Tuubaa ci liggéey yépp nag wa ma shahidna ila bi ma alim na sëñ Fallou nee na sëñ mët mët Jóob Masàmba li nga ma jox benn doomi cheikh bu ma ko mas a jox amul la demee lii nga ma jox benn doomi cheikh koo jox kon kooku wane na doole sëñ Masàmba Jóob Samb sëñ Abdoul Ahad moo ni lii ma sëriñ Moodu Badara defal bu nit ak jinne ak malaaka teewee may seede ndax bu boobaa yàlla dana teew laay teew sëriñ Touba teew sëriñ ma sàmm jóob maamam teew sëñ ma Diop Massamba teew ma teew mu teew bu boobaa maa koy seede ci kanamu sëriñ Touba mais loolu mosu koo wax ku sant sàmm ko man mais mi ko wax ku sant kon nañ ci góor góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax fi nga xamante ni nag fi lay wàccee kàddu gi moo di jumaa ji. bu jumaa ji jaaxal gu mu jaaxal waa addina ndax Sëñ Tuubaa moo tudd tàmbali sant àggale koo fi dégg ci àddina muy dox bala ngaa tabax dangay fexe ba tëpaax ku tëwul pax bul tabax bala ngaa jaxase ciment ak suuf góorgóorlul ba jaxasoog borom asamaan ak suuf jumaa ji 30 milliards la benn chef d'état bu ci def cent franc amul man mii maa jëkk ci barab bii billahi lazi la ilaha illa huwa kon buñ demee ba pàkk bu toll nii ñu fab jumaa ju toll nii def ci lampe bi quatre tonnes huit cent la quatre tonnes huit cent mooy lampe bi ngeen duggoon ci biir te mu mel ni kaaba gi dañ ko ko ëmbee muy lampe bi lii nga xamante ni moom la chinois yi di def montre bii rek juróomi mètre la ci guddaay di ñetti mètre ci gàttaay foo toll ci ndakaaru di ko teg bët ndax lan ndax ñaari guddi ndakaaru juróom-ñaari at ak juróom-ñetti weer sëñ tubaa tegul cin tegul tegaluñ ko cin tibbul tëddul fu ko tisbaar fekk fa la ko takkusaan di fekk fu ko timis fekk fa la ko gee fekk mu naan tabaaraka rabbun lii xadalaada waxdahu faqiran xariban inda galwaa wa baafali amul benn yoon bopp sëñ tubaa mas naa fàttaliku bañ ko bëma xëy ci géej gii te dinaa la wax lenn billaahi rakk yi fii lañ koy bokk defee maam ñëpp waaye julli ci géej gi kooku sibili la tudd dootu ko dégg ci addina ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu demoon ci dekkal néew mbaa doxloo lafañ gumba dina am beneen yonent bu yëkkati loxoom ni ko man ci dekkal naa néew doxloo naa lafañ doxloo naa garab gi nangam waaye dem naa ci gé ci kaw subhaana lillahi asri bi abdihi laylan min al masjid al arab ila al masjid al aqsa jóge naa fii dem ci yàlla delsi dootul dégg benn yonent di ko ak man mais bu Sëñ Tuubaa yemoon ci tabax naa jumaa yor naa daara seexal naa nit am ko yëkkat loxo waaye dem naa géej waaye loolu c'est fini barke Sëñ Tuubaa du ko jég dem naa kon nag kooku bu taxawee ni sëñ Massamba Diop Samb maa ngi yow du tey démb la woon maa yow du tey démb la woon da ngeen di jàpp ni bi sëñ Massamba Diop sàmm di ànd ak sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa soxla woon na ko la na xel yi dem foofu bi sëñ Touba laa wax di ànd ak sëñ Massamba Diop Samb sëñ Massamba Diop Samb bi muy ànd ak sëñ Touba sëñ Touba soxla woon na ko ànd ak moom mu ànd ak moom àndinu rafet noonu jël ngor ga jaay ko jënd ak taalibe bi lépp mu def ko gor la góor la géer la kenn ku ko gën amul mu jaay lépp jox sëñ Bamba waaw yéen tamit kon dafay dem ni kon su melul nii kon kon liggéey sëñ Touba ana lan lay jëriñ ba tax na kon mbokk yi ñu gën a góor góorgóorlu bu baax jumaat ji nag dafa toll ci solaat mbubb mbubb mu mujj ci la toll mbubb mu mujj ndax keroog bi may soññee lay Jóob jërëjëf ay ma barkeeloo ko sëñ Basiiru Jóob alxuraan moom sëñ ma Masamba Moodu Masamba Jóob d'accord la xaaral ma def léegi kon alxuraan jooju sax faf uh-huh. boo ko bëggee xam dangay xool sëñ ma Masamba Jóob sax mm-hmm. mooy alxuraan juy dox mm-hmm. fii ne nii jukko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo ko bëggee xam mooy sëñ Massamba Diop Samb juróom-ñaari jukko yi moo taxoon yàlla ni Muhammad wa innaka la'alaa xuluqin aziim woyof muñ yaatu tabe lewet gore dégg ndigal mais loolu moo dal sëñ Massamba Diop Samb maam Thierno Biraye nee na lu yàlla di jox nit day sama yoon ci waaye lu mu lu nit am te sëñ Massamba Diop Samb amu ko waaw sëñ moo wàccee foofu kàddu gi sëñ sëñ sëñ maam Thierno moo nii ku dugg kër sëñ tubaa waxtu woo lañ tibbale xam naa ko waaye fa ñu séddi ma Samba Diop Samb moom xaw ma ko mais maam Thierno wax loolu kon bu ñu demee waaw gisul ndabam moom gisu ko kon nag loolu bu ñu ko amee nun ñii noo war a góor góor lu góorgóorlu. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw ba nu santee sunu borom subhanahu wa taala julli ci Mustafa alayhi salaatu wa salaam. santaat bu baax Cheikhuna al Xadim Xadimu Rasul sunu yaakaar yi tey ak bëllëgee mu ngi ñaanal Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha sunu borom bàyyi ko fenn bàyyi ko fannu gudd lool ak wér ba mu yeggale ay yéenam ak bëggam lépp ci bàkk Cheikhul Xadim di ko ñaanal Cheikhuna wal wasilatina Cheikh Ahmadul Muxtaar Mbakke xalifatu Cheikh Mouhamadul Moustapha di am mbégte mu yaatu ci tawaay bi nu teew ci jataay bu tall bi di jataayub ma sàmba Diop Samb bokk ci wala doon kenn ci waa kër sëriñ tubaa ne waa kër Serigne Touba nag mën naa bari mën naa néew waaye Serigne Massamba Diop Samb moom ci waa kër Serigne Touba la bokk mu mel ne kàddu yi sax mbokk yi ñu ko jox dafa dañoo baax rek waaye ñun moom bis bi yëkkati ay kàddu andi fi diggante sëriñ Darou Hassan Ndiaye ak Serigne Massamba Diop Samb moo nu tax ñëw. waaye wallaahi lancim yëkkati ay kàddu taxuñu fee ñëw ndax xam kóllëre bu rafet gu taaru googu rek bi nu sëriñ Xaadim waaye wax nu bis bi te bi may woo téléphone yàlla mi nu tiim xam na ne maa ngi ci kanamu sëriñ bi sëriñ Ahmadul Muxtaar di waxtaan ak moom voilà fi ci fajar laa jóge tuuba ñëw nekk ci nit ñi ba waxtu wi ma bàyyi la ma doon def lépp ñëw teew jataay bi kon teew fi rek ak ak ak ak ak bi ni ki ñu koy defal lim doon ci nun moonu tax a ñëw waaye jëmm ju baax ji nga xamante moo ne fi tax a teew moom it di sàmm kóllëre googu lool ndax am na ci biir njaboot gi ci ñi àndoon ak sëriñ bi ñoo xamante bi ne nii la seeni maam nekkoon ñoo ngi koy déemu dundal rawatina kóllëre ge seeni maam am lante woon ak seen mbokk yan nekkaloon ci sëñ kër sëñ Tuubaa te kóllëre gu rafet daa doxoon lool ci diggante sëñ Masamba Jóob Sam ak sëñ Daaru Sam ba jàpp naa ne bi ma ñëwee sax mënoon naa ba ñàkk jël kaddu ndax naa fi samay waajur ñoo xamante ci waa kër sëñ Masamba Jóob Sam ñoo xam bu ñu yëkkatee kaddu dana ñu yóbbaale ndax suñuy waajur lañ te suñuy bàyyi ci Daaru Njaay bu ñëwoon fii ñun duñ wax dañuy toog di leen déglu kon bu waa kër sëñ Masamba Jóob Sam toogee te suñuy waajur nekk fii jotoon ñu yëkkati kaddu waaye nag kàddu goo xam da nga ne nañ ko yëkkati ci turu cheikh yi ñu fi teew di ay cheikh yëpp loolu diis gann la ci ab taalibe nga di ko wax loolu waaye daal kon nan xam ne noonu rek la yoon yi moom loolu rek fii may dara sëñ Masamba Diop Samb lii lépp li ko waral rek ak taalibe sëñ Masamba Diop Samb ndax jataay bii képp ku fi teew wute na lool ak bari bi yi xew-xew yi bis yi ni tudd tudd sëñ Tuubaa ci Ndakaaru ak jataay bi sëñ Masamba Diop Samb bii ku ci teew da nga xam ne wuute nañ ndax gisoo su fi lenn lu dul xasida waxtaane sëñ bi Samba Diop Samb loolu ba ma fi toogee ba bi bi ba sama kàddu gi ma yëkkati loolu rek laa fi dégg gunu nag te loolu moo yey ci nag ci bisu sëñ ma Samba moo ci moo ci yey moo ci jàll kon yàlla na ko yàlla fayal te yàlla sax fay na ko lii lépp rek sëñ ma Samba Diop Samb te la fi jóge woon bu demee ba bisu tey ba bisu tey bii lu jóge téeméeri at ba mu fi jóge tey mu mel ne tey gone yii ñu ñii nga xam ay ndaw lan nga xam mën nañ ne sax suñu xëy na suñuy waajur fekk ñu fi suñu Masamba suñu Masamba Jóob Sàmb ñu jur ay doom di ko tuddee buñ ko tuddee ñu génne suñu alal di génne suñu ronkoñ loolu jaayante gum jaayante woon ak Sëñ Tuubaa moo ko waral loolu moo ko waral mahabba yitte ju yi ji digganteem ak Sëñ Tuubaa moo waral loolu moo waral mu jiitu ñëpp xëy na coow li mooy bëri rek waaye am na ci ñoo xamante bi ne nii boo leen dee tudd tudd ñeneen seex ci seexi Sëñ yi coow bari rek waaye am na ci ñoo xam moom dañoo beru euh, kilifa gu mag doomi Cheikhul Khadim la wax ne ne am na ñeent ci njabootu Sëñ Tuubaa wala ñeent ñoo xam Sëñ Tuubaa leen defar tudd leen tudd beneen sëriñ beneen tudd leen di tudd doomu aadama daa araam te ñeent ñooñu Sëñ Masamba Jóob Sàmm ci la bokk Cheikh Mahamadou Mourtada moo ko wax nee bi ma nee dann wuti sama borom ñoom ñeent ñooñu la njëkk teg sama bët waaw Cheikh Mahamadou Mourtada wax na loolu nee na ma nee dann wuti yàlla ñeenti ñii laa njëkk teg sama bët tudd leen tudd beneen sëriñ daa araam sëñ ma Samba Diop Samb ci ñooñee la bokk kon coow yu rek léeg-léeg ak ni demee propagande gu metti gi kenn waxatut te yàlla tax kenn ku ne yaa ngay taaral kër gi nga bokk léeg-léeg sax dañuy jël jëf jenn mag moo xamante ne ni kenn du moom ku mel ne sëñ ma Samba Diop Samb nga jël jëf ju rëy jëm jëfaloon sëñ Tuubaa di ko féetale keneen te bëri na ci lool léegi waaye sëñ ma Samba job Samb moom ci ñi beru la bokk ci ñi beru nga xam sax xëy na boo war boo boo boo boo dee déglu sax lu bëri li ngay dégg sax ñu di ko tudd di tudd ci yenn yi du bëri loolu nag beru gum war beroo ko waral ak yàgg gum yàgg googu ak it nekkiwutoon ci sëñ bi lenn lu jaamu yàlla ak liggéey loo koy wax lu loolu rek waxul am sëñ bi sam sam loolu rek la nekkoon ci ko sëñ Tuubaa jaamu yàlla ak liggéey te day mel ne loolu dong nga taxoon nag sëñ Tuubaa jóge sëñ Tuubaa fekk na soxna Faati Jee Mbàkke doomam tëdd di nelaw mu wéq mu mel ne ko wéq ne koo falang ne ko xanaa kii du faati mu ne ko mbakki man a kay mu ne ko kon faati danay nelaw mu ne ko mbakki ku yow dana nelaw mu ne ko waaye yow damaa bëgg soo ko mënta ba ñàkk dafa dee ko néewal ndax damaa bëgg bu ñu tuddee bu ëllëgee fu ñu tuddee Fatimatu bintu Rasuul teg la ci kon Sëñ foofu foofee la nekkoon jaamu boromam moo ko fi taxoon a ñëw mboolem ñooñee mu ànd lool nag loolu rekk taxoon seen yitte sëñ ma Samba Diop Samb nag ki ñooñee bokk kenn jiituwu ko nag ci ci genn fànn nag ci digganteem ak sëñ Tuubaa waaye kon loolu rek lañ doon yëkkati kàddu yooyu rek ngir ngir ngir ngir ngir ngir sant eh, ak gërëm ci barkeb sëñ Tuubaa waaye daal daanaka mënoon naa ñàkk waaye dangeen a baax rek eh, ni mu demee xam ne diggante sëñ Daaru Xasan Njaay ak sëñ ma Masamba Jóob Sàmm kon yàlla na yàlla fay leen ci barke Cheikhul Xadim jataay bi yàlla na yàgg te sax ñu dem ba suñu njaboot suñu sët sëtaat di ko dundal yaakaar naa teewoon nañ fi daaw nañ fi ren yàlla nañ fekke waat déwén ba teewaat fi ci barke Cheikhul Khadim wastaghfirullah ali wa lakum wa li saa'iril muslimina assalaamu aleykum wa rahmatullah macha allah la ko tàmbalee ci sëriñ Mahmoudan mi nga xam ne mooy doom yi sëriñ Baara Diop sëriñ Baara Diop ak Baye Sëriñ ñoo bokk wenn waay jiw tegu ca ka nga xam ne mooy xalifa Baye Sëriñ Diop di sëriñ Baara ñoom ñoo ma yónni wax ni seen xol sedd na seen xel dal na ndax kenn ku ci nekk yittewoo goo xamee si ni yittewoo nga ko bis bi ak taxawaay bi nga ci am yaakaar naa bari na ay bis yu fi jaar waaye bis bii wane na boroom kon nag moom doomi sëriñ Massamba Diop la ñu tuddee ko Serigne Touba Serigne Touba yar ko am na ñu ci jaar. wante moom bi mu tollee ci dal jàng sëriñ ma Diop daf koo jël yóbbu ko ci kër yóbbu ko ci kër décc ca kër sëriñ Lamine Guèye mu di fa jàng alxuraan ba benn bis sëriñ Touba woolu sëriñ ma Diop mu ñëw mu ne ko ana ki ma tuddee woon mu ne ko mi ngi mu ne ko fu mu nekk mu ne ko day jàng mu ne ko fu muy jàngi mu ne ko ci kër décc mu ne ko kan moo koy jàngal mu ne ko sëriñ Lamine Guèye booba am na ñu mu àndal ca ñoom fa doon jàngadoo alxuraan sëriñ Abdou Samad Diop ci la bokk mooy waajuru sëriñ Moustapha Bële keneen ki ci topp itam moo di Baye Baara Thiam dafa naa ñu bari xam nañ ko mu nga dëkk Ndar ak ñeneen ñi nga xam si ñoom la àndaloon ci biir jàng ba waaye bi mu toogee ba mu yàgg sëriñ bi woolu ko mu ñëw mu ni sëñ Massamba Diop dem woolu ma sëriñ mu dem wooyu ko mu ñëw bi mu ko wooyee ba mu ñëw ba mu agsee mu ne ko sëriñ mu ne ko mbàkke mu ne ko dangay foo nekk mu ne ko damaa nekk sëñ euh, sëñ Masamba Diop moo yóbbu kër euh, ca dëj euh, moo yóbbu kër sëñ Lamine Diop ca ku di wax sëriñ dëj léegi nag ba mu fa yóbboo ma toog fa di ma jàng ba léegi nii si ndigalam jotagut tey jii nag wax na ma ni ma naa ñëw fekk si bi mu ñëwee mu ne ko foo toll mu ne ko maa ngi toll ci xulaw awlu xulaw joxtukum xulaw awalaw jiitukum léegi mu ne ko sëriñ mu ne ko mbàkke mu ne ko foo bëgg a mu ne ko mbàkke foo ma diggal rek foofu laay jànge sëriñ tubaa fekk mi ngi yore benn feggu mu wëlbati feggoo ni ko sëriñ mu ne ko mbàkke mu ne ko saa borom nee na ku ñuy wax ma caarika moo lay àggaleel alxuraan bi mu jógee toog sëriñ bi daat ni nan ma woole ma ka bi mu tàllalee loxo bi di nan ma woole ma caane ka mag ñépp kër kër yi bëgg a jóg sëriñ Tuubaa ni nii ñëpp egg suuf mu ni bàyyi leen kii sàkku dem bàyyi sëriñ daal di jóg laajul sëriñ Tuubaa ni ko fan la ma ka dëkk waaye daf ni daal joxoñu sëriñ Tuubaa bii xam naa ni balaa asamaan see gekk dinaa gis ma caane ka mu génn dox tuuti dajeeg jenn jigéen mu nuyoo ak moom mu ne ko foo dëkk mu ne ko fii ci dëkk bi laa dëkk mu ne ko man na dama doon laajte ku ñuy wax ma caade mu ne ko man mii de soxnaam laa seen nga këlee di jàngale ci ron màngo ga moo di ma caade mu daal di jóg dem agsi ci boobu nuyoo ak moom ni ko yowee sëñ ma caade mu ne ko waaw mu ne ko wuyul ko tedd gi sooy ma daal di ne bërët àll jàpp ko mu daal di fëx wëcc foofu bay sëriñ bay sëriñ dox ndànk ba agsi bi mu egsee ñu toog bay sëriñ egsi toog mu ne ko ma mu ni ko mbàkke mu ne ko saabaroom xamal na ma ne li nga xam ci alxuraan nga xamal ko jëmm ji daal di jël teg loxoom ci bopp bay sëriñ teg loxoom ci bopp ma caane ka ni ko raj kon keroog la ko sëriñ tubaa sol alxuraan mu xam ko xamin woo xamante si su ko daal jàng sa xol day tooy ba nga yëg ni kii Serigne Touba am na lu mu def ci moom beneen bi ci topp itam xanaa ci gàttal rek Serigne ku ñuy wax maam Abdoulaye jóob rakk la ci Serigne Massamba jóob moom ak benn taalibeem bu ñuy wax sëñ Abdourahmane Fall ñoom la Serigne tubaa daal di yónni ca gànnaar kenn ku ci nekk. mbuus ya nga daan yor benn mbuus bi baraay lay def beneen mbuus bi sànqal lay def beneen mbuus bi ngurdu lay def beneen bi ci des ay seel lay def bi ñu koy yóbbu ñoom kenn ku ci nekk ñoom ñaar ñu di ko yóbbu ba yàgg ma maa Ablaye Diop mel ni dafa libbët mu woo sëñ Abdourahmane ni ko ki nga daan ànd ak doon dem gànnaar day dafa mel ni dafa libbët ma bëgg nag nga dem gànnaar yóbbu ñeenti mbuus yi soo dellu siwaatee yóbbu yi ci des mu ni ko a ah, lépp loo ma sant lu rekk xam naa ni danaa ko def ndax sama pas-pas ci yow daal di boole yi mbuusu ñeenti mbuus yi maam Ablaay yooyee ak ñeenti mbuusam yooyee gàddu ko wuti gànnaar bi mu dem ba ci yoon wi daje naag ñaari gaynde ci yoon wi maam Abdourahman dafa xuus seen biir jàll sëriñ bi ni ko Abdourahmane mu ne ko bi mu egsee bëri bëcc sa mbuus euh, yi kenn ku ci nekk yëpp na ni sëñ Abdourahmane mi tey ji ànd naak àll yoo xam ne kenn xamuñu bi mu ñettee ñàqaw yi nga xamante si mu sotti ko euh, sëñ Tuubaa di ko xool ba mu yàgg mu ne ko Abdourahmane mu ne ko Mbàkke mu ne ko Abdourahmane mu ne ko jëw mu ne ko lii de jëf rekk koy bay waaye Abdourahmane mu ni ko Jóob mu ne ko la sëriñ Tuubaa do la sëñ Masamba Jóob doon jaay ca Dóor Saam te nga waxaale ko ko fii ci gànnaar waaye Abdourahman ba boobu asalaamaaleykum kullikum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ngeen baal ñu wax bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi wahda wassalaatu wassalaamu ala man la nabi bahda mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen waa daairatu xidmatul qadim li Cheikh Massamba Diop Sam ñoo ngi leen di nuyu nuyoo ba gën a rafet ci diggante jullit ak moroomam te moo di asalaamualeykum wa rahmatullah di jiital ci nuyoo bi a Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ko ñaanal bu baax ba li mu naa la liggéeyal maamam ju tedd ja Cheikhul Khadim suñu borom def mu yeggale ko ca na mu ko bëggee waaye itam di ko ñaanal sunu wajur wu tedd wi sunu wajur wu tedd wii nga xamee ne moo fi toogee jotaayu Seex Masamba Jóob Sàmm te mat ko sëkk moom it ñoo koy ñaanal bu baax ba li mu naan liggéeyal wajuram wu tedd wa Seex Masamba Jóob Sàmm mu yeggale ko sa na mu ko bëggee di nuyu kilifa sama eh, kilifa yu tedd yi yëpp yi teew ci jotaay bi yëpp ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen jéggul itam kàddu yi nga xamee ne moom la ñu yëkkati fi seen kanam ah xanaa kàddu yi moom li fi matoon a wax lépp wax dëgg ñi weesu wax nañu ko xanaa kàddu yi cant rek lay doon yu gàtt a gàtt di jég di jéglu nag bu baax a baax kàddu yi nga xam ne ñoo koy yëkkati ci seen kanam yéen suñu kilifa wax dëgg waruñu ndax laa tarfahu aswaatakum fawqa sawti nabi teg al ulama warasatul anbiya kon ñoo ngi bu baax a baax kàddu yi xanaa it dafa fekk rek ñu teew fi ci ndigalal sunu wayjur Cheikh Abdourahim Diop mi nga xam ne moo fi toogee jotaayu ma Massamba Diop Sam ndax maanaam teewaluñ ko fi ndax moom jëmmam ji xajul ci ñun waaye nag dañ fee teew ci ndigalam ba tax na kon loolu ñu sàkku ci man dina ko man muy cant cant goo xam ne wér na ma ni fa mu toog moom ma ngi koy def ci xolam kon ñoo ngi leen di sant bu baax a baax yéen waa daairatu xidmatul xadim ci taxawaay bu rafet bii nga xamee ni taxawee ngeen ko ñun njabootu mboolem njabootu Cheikh Massamba Diop sàmm gi ameel na leen ci njukkal ndax mel ngeen mel na ni ñoom ñoom ngeen ko defal cant googu bu nu ko waxut ci làmmiñ itam suñu kilifa yu tedd yi toog rek wane na ko ndax wax dëgg yàlla mboolem yi Seex Masàmba Jóob sàmm yi ku ci nekk am na fu jóge foofa ñëw teew jataay bi kon li firnde ci ni wax dëgg yàlla yéen waa xidmatul xadim lii firndale ci ni maanaam firndale ci ni maanaam wax dëgg yàlla rafet nañ njort ni maanaam jataay bi li ñu ciy sàkku suñ xel mën na cee dal bu baax xanaa di leen soññi bu baax rek ngeen gën a góor góorlu te xam ni fii ngeen teg seen loxo rek foofa la te itam jëmm ji ngeen àndal ànd ak moom ak liggéeyal ko maanaam xaas la joo xam ne sëriñ tubaa moom moo moo moom moo koy defal nit ki waaye du ak njàmbarteem xaas gi nag loolu du samay wax dégg naa ci gimuñu gimuñu Cheikh Moustapha Mbacké Abdoul Khadir radiyallahu anhu mu wax ni mboolem kër yi Serigne Touba tawfeex la fa def waaye kër Cheikh Massamba de moom Serigne bi xaas la fa def kon liggéey bii ngeen di liggéeyal Cheikh Massamba xaas la joo xamee ne Serigne tubaa moo leen ko defal waaye jaare ko seen buntu Cheikh Massamba kon ñoo ngi leen ñu gàttal lekk ñaanal leen ci barkeb Cheikh Abdourahim la ki kii ngeen di liggéeyal la mu waxoon ni ah saa waa de xaasam ju nekk xaasal na ca moom la daan wax daan saa waa de xaasam ju nekk xaasal na ma kon ñoo ngi leen di ñaanal ci barkeb Cheikh Abdourahim waaye ci barkeb Cheikh sàmba ba xaasam sëñ Massamba loolu ko sëñ Tuubaa xaasaloon ci boppam yéen mu xaasalaatal mu xaasalaat leen ci xaas yooyu jërë ngeen jëf wax dëgg yàlla rafet na lool góorgóorlu leen nii rek la maanaam làmbatuwu leen dangeen daj na seen xel gën dal bu baax na seen xel gën a dal bu baax doon donte xam na ne sax seen xel dal na waaye dañ leen koy wax rek ngir li suñu borom waxoon sunu maam Ibrahima ci ci alxuraan maanaam sunu maam sunu ba mu wax suñu borom ni ko rabbi arinii kayfa tuhyil mawtee suñu borom ni ko xaala awalam tu'min mu ni xaala balee walakin liyatma'inna qalbi sunu maam Ibrahima dafa wax sunu borom ni ko arinii kayfa tuhil mawtee wan ma naka laay den naka la ñuy dekkale ku faatu suñu borom mel ni ku ko jàjj ni ko awalam tu'min xanaa gënoo xanaa gëmoo mu ni ko aha kay wala mu ni ko aha waaye nag li yatma inna qalbi nga sama xel gën a dal kon yéen xidmatul xadim na seen xel gën a dal te xam ne lëmbatuwu leen di ngeen a daj di ngeen a daj ah, ñoo ngi leen di ñaanal bu baax ba turu tedd woowu ku tedd gi tuddal leen ko te muy tur woo xamante ne si wax dëgg yàlla lu kawe kawe la ñoo ngi leen di ñaanal li ci nekk ci biir suñu borom dëxañal leen ko ndax moom sëriñ bi xidmat googu rek sëriñ bi dafa doon wax ni inna allazina zaalahum fi xidmati fa lahum diyaaru wasal jannati gaa ñi nga xam dañuy dox ci di ma liggéeyal yàlla tabaxal na leen ay kër ca digg àjjana nga xam ni génn àdduna rek moo leen ca tee bi kon ñoo ngi leen ñaanal xidma bii leen eh, xidmatul xadim gii leen Cheikh Abdourahim ehm, tudde ñoo ngi leen ñaanal xidma googu Serigne Touba di ñaan mu rafaatal leen ko ci barke Cheikh Massamba ñoo ngi jégalu lu baax a baax kàdd yi di ko jégalu bu baax a baax su ci kanam suñu kilifa yi ñu koy yëkkati wax dëgg waruñu waaye nag ndegam teew nañu fi te itam ñu yëkkati ñu ñu yëkkati ñu dañu fee teewe Euh, dañ fee teewal sunu wayjur Cheikh Abdourahim am na sax sunu ay xalifa yu fi nekk wax dëgg yàlla te matu ko sëkk wax dëgg ñoom lañ laaj ndigal ba sañ a yëkkati kàddu yi waaye daal ñoo ngi leen di xamal ni teewaluñ fi Cheikh Abdourahim ndax moom jëmmam xëjul ci ñun waaye nag dañu fee teew rek ci ci euh, ci ndigalam kon ñoo ngi leen di ñaanal bu baax a baax li ngeen di sàkku ci liggéey bi yéen ko xam suñu borom defal leen ko te neen ko bëggee ci seex Cheikh Massamba Diop Samb wa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw bi ñu ko sàkkoo ci ñun ñu ñëw fii teew bi yoral ko liggéey bii ñu jaayante ko nag ngir sunu maam gi nga si dañoo amul moom bu lay ñu sëpp sëriñ Massamba Diop rawatina bàyyi sëriñ bi nga xam ne moom a ñi sama woy gi sëriñ Cheikh Mbacke Diop yëpp xalifaam kon su teewee yoral ko kat yor liggéey bi liggéey bi maam sëriñ wàcc naa di nuyu bu baax jëwrinam jële di maam Rita lay di jëwrin ci kër bàyyi takkee fag laxasaay tey lépp lu mu am maam Serigne ko ko defal baati nu maam Serigne rek doy na jëm jee toog ndax lépp lu mu dund ci àddina rek waral na ko ko taggisal na kon li ci mën a wax Serigne bi wax na ko ñu ngi leen sant bu baax di jëpp ñëpp nag kàddu yi di leen xamal nag lépp loo xam ne juum na wax nañ ko mu dul noonu du suñu coobare waaye aw fooy lañ bindoon jox ñu ne ñu ni ngeen ko doxalee nii incha allah rabbi bu fekkee defe nañ ko doon Assane ah. Argentine TV Argentine TV ñu ngi leen di sant bu baax ci seen taxawaay ndax ci suba ba léegi ñoo ngi fi ba ñuy wàcc kaamil ak ba fii ngir am ak ñun liggéey bi te lépp loo xam si ni jaar na fi ñu ngi koy jël te fas nañ yéene incha allah rabbi danañ ko ñaatal bu baax a baax ba kenn ku nekk ñëw woon sax te amul yéene ñëw di nga ko indi incha allah di nga ci teg sa bët kon ñu ngi lay sax ba ci ki gën a nekk ci suuf yàlla leen suñu borom yëkkati yéen ñëpp fi ngeen bëgg a yegg mu yeggal ñun ñëpp ñu maase teewu nangu ñaan Serigne Fallou ñaan ko defee ñu yëkkat jataay bi ba déwén di ñaan yàlla suñu borom fekkale waat ñu ko bu baax a baax. bima saa wasiya kursi samawaat wal ardi wallaahi huwa doobi samawu al asim amiin amiin salaatan tunajjina biha min jami ahwaali wal afaati wa taquluna min jami ajat wa tutahhiruna min jami sayyiat wa tarfa'una biha indaka ahwal darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami khayat fiha ibadullah rabbi shkuri lana wa ahlama salatu ilallah salli ala nabi wa sallimi wa qdihi ajat amiin yàgg teew